on en arrivé ak euh, DGE. Mm-hmm. DGE dafa am loo xamante ne euh, jiitu na ko te foog ñu fàttali ko pour xam posture euh, ci situation bii nii. Mm-hmm. déjà danoo lancé collecte de parrainage yi son Sonko dem pour jëli. Mm-hmm. ñu ne ko sa tur nekkul ci liste bi. kon mënoo jël fiche pour parrainer première irrégularité mooy Karim ñëwoon na jël fiche ñu jox ko ko moment boo xamante ne nekkul woon ci liste bi il a été condamné définitivement en 2015 mm -hmm. gracié en 2016 parce que grace moom pour nga am ko il faut que la condamnation soit définitive mm-hmm. mu mm -hmm. donc bi muy jox euh, Karim Wade fiche boo fekk na Karim Wade définitive woon na kon ci côté boobu rek mm-hmm. même si c'était la radiation était vraie mm-hmm. moment boobu noonu amul dara lu opposé woon ñu jox ko fiche parce que moom it li muy joué ci euh, candidature du dara lu dul joxe fiche rek maanaam même validité euh, parrainage yi signature yi du moom lañ koy jox. Mm-hmm. collectif bi bu paree conseil constitutionnel la koy yóbbu. kon moom du ci leen mënul arrêter mënul recevoir mënul invalider candidature. mënul mm-hmm. nekk du prérogative am prérogative exclusive conseil constitutionnel la article deux loi organique ci conseil constitutionnel. alors son Sonko jóg ne moom radiation bi ñu ko rajee àndu ci mu déposer un recours. on en matière administrative mhm. le recours n'est pas suspensif kon malgré le recours il reste radié mhm. le recours n'est pas suspensif alors bi mu demee le tribunal d'instance de Ziguinchor jox ko raison mhm. ne ko radiation bu ñu la def c'est une radiation irrégulière nañ ko delloowaat ci fichier électoral bi article L47 bu code électoral mu ni bu loolu amee immédiatement l'autorité chargée du fichier c'est-à-dire DAF dafa war a dem dans le sens presque par la juridiction immédiatement lu tax mu wax immédiatement fàttali naa la ko sànq mooy parce que le recours n'est pas suspensif moo tax mu ne immédiatement alors euh, coup de théâtre la DGE sor benn communiqué mu ne maintenant le recours et suspensif bi Ousmane Sonko di def recours recours bi suspensiful bi état defee recours le recours devient suspensif lu mënut a nekk alors donc comme le recours est suspensif selon la DGE mais yoon moom moo may Sénat parce que bu ñu xool ci wàllu organiser élection moom daf leen féetee kaw mm-hmm. looloo tax eh, article L euh, treize bu code électoral may ko sañ-sañ bu kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo séq élection yi jalgatee yoon moom moo lay rappeler à l'ordre mm-hmm. rappel à l'ordre boobu noonu mën na la euh, aviser ne la lii nga def nii du nii defee ko nii mm-hmm. yoon may na ko mu décisir la maanaam yëlëb sa loxo tegee ne yoon may na ko moom mu substituer wu ci yow ne la la waroon a def léegi faf ma am na maa koy def parce que effectivement moom xam na ni euh, daaf li ko juridiction bi wax mënu ci dara mais moom def na ko léegi xoolal ñaari institutions yi ni ñu comporté woo selon la DAF la décision le recours n'est pas suspensif parce que DAF bu ko delloo ça veut dire que ni DAF jël na en compte li juridiction bi wax bàyyiwul xel recours bi donc selon la DAF euh, décision bi c'est pas suspensif selon la DGE c'est suspensif donc problème bi kon institution yi suñu bopp dañoo jaxasoo ñoom ci seen bopp mm-hmm. Obama waxoon nañu ko fi on n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes mm-hmm. mais la volonté manifeste d'éliminer Ousmane Sonko a fragilisé nos institutions ñoom ci seen bopp ñu ngay xaxarante kii bu waxee jaar gauche kii wax jaar droite mm-hmm. alors que ni li DGE wax ak li loi bi wax comme yàlla ak yàlli parce que lii ma fi wax nii yëpp ce sont des faits factuels ce sont euh, des textes donc textuels ñaar yi ma sukkandiku yëpp amul lenn loo xamante ne ci DGE nii mu doxalee am na ci lu conforme ak euh, kii bi donc comme que léegi Ousmane Sonko la taxoon ñu jox bañoon ko jox fiche bi mhm. moom mooy nekkul ci liste bi ay la yowee léegi mu ngi ci liste bi mi ngi ci liste bi ban lay lay war a andi mhm. pour bañ koo jox fiche de parrainage amul parenage bi mu commencé léegi mi ngi bëgg a yàgg de mhm. rupture d'égalité boobu noonu nan lañ koy def après ñenn candidat yëpp a ngi ci biir euh, di wuti parrainage donte jafe na loolu am na ñuy delloo avance sax <laughs> mais. <laughs> waaw suñu confrère. waaw Mamadou de <laughs> Mamadou delloo na avance depuis àjjuma maintenant donc kon euh, lan moom moo dox ci diggante jox Ousmane Sonko fiche euh, ak euh, DG amatul. Mm. ci yoon ça n'existe plus amatul benn porox ndoll bu ñu war a mënati jaar ba ne Ousmane Sonko mi duñu ko jox fiche. mais et le limogeage de Doudou Ndir. oui waaw naka naka nga gisee. d' abord si njiitu réew mi mu jël décision. d' abord sur sur la forme sur la forme c' est inélégal. sur le plan formel lii xew. Mhm. du du ndir yàgg na foofu ah. oui tarab mandat ma jeex na. Mhm. peut-être que même qu'il est à la mhm. mais bàyyi nañ ko fa. ba mu jëlee décision bii nii immédiatement même bu doon sax mandat am jeex na dañ ko fa war a bu defee lii nii l'élégance voudrait que ni nga bàyyi noonu mu yàlla nag. parce que c'est mais est-ce que aujourd'hui lii nii sa prouve pas un peu ce que les gens disent nit ñi lu ñuy ngun ngungunee si suuf comme comme quoi que on veut éliminer euh, Sonko coûte que ba ku dem jël benn décision boo xamante ne sax xëy na dina dem un peu à sa. à sa faveur trois ans yi nii maa ngi euh, daal di lay. Euh, trois ans ma ne la toutes les procédures judiciaires qui ont engagé Ousmane Sonko ba léegi benn enjeu moom moo ci nekk mooy mu bañ a bokk. pour l'éliminer je suis formel là-dessus. te boobu ba léegi ngay gis ñoom ñuy <laughs> teg ay actes yoo xamante ne. Mhm. mi ngi koy firndeel bii nii benn la rek. Mhm. yeneen yi ci des yëpp mais euh, kan euh, ñu ngi laaj bokk na du bokk. muy contumace. Mhm. muy affaire Mame Mbaye Niang amul benn ci ki nga xamante ne plaignant moom moo am gain de cause ci ko amu ci benn bi ñu demee Mame Mbaye deux deux mois la woon. c'est exécute la politique pénale du gouvernement. moom moo def appel. bi ñuy wax viol menace de mort ñaar yëpp lañ taxatee tegee ne le c'est le procureur celui qui exécute la politique pénale du gouvernement moom moo dugal corruption de la jeunesse donc la politique du gouvernement c'est d'éliminer Ousmane Sonko